Bienvenue sur Salam Vision. fogole séeréer inu simnaan nekkee na Salam Vision euh, ziyaara a warat no cooxan fo cuwaayu euh, ke kam saax le émission ke kam saax le e ingarit honum no émission ne hay mais haye ta ref ka olof parce que haye olof i ndamnu men bo mbaxtaanit situation fen saate fe fagun faak maa lay nuyu di la ziyaare di fii ke kam saax le ñu di war a xool euh, di dégg mën a séeréer nag. Hmm. waaw waaw mais nag bu dee. waaw ah, olof rek gaañ nañ la dégg. voilà xool na ñuy def hmm. yi. Hmm. daaw ba ñuy dund corona ñu tëj ñu ubbiwaat ñu tëjaat ñu ubbiwaat ñu fi mu toll nii ubbi nañ lépp euh, te feebar baa ngi fi jaxasoo bi commencé naa am. Euh, loolu lan moo ciy saxawaat lan la ñu war a dundee bu jëla bi feebar bi comme nañoo fa yéene dund moom. waaw loolu nag moom lu ma ci xam moom xam la mooy problème feebar bi mooy. feebar bi du Sarr. doo mën a comprendre tu ne peux comprendre seulement c'est les gens qui parlent. muy ñëw ci yow. maanaam ngay déglu ñu naan la lii moo am lii moo am mais man la moom problème c'est quoi mooy gisuguma. Mhm. kuñ ne kii daa feebaroon lii corona bu de de attachement des rumeurs mën naa ne kon secteur bi ñu dund. boo waxalee sa bopp rek yàlla feebar bi doxewul noonu loo xam ne day jàpp nekk en secret nit mën na feebar bu wér. mais déedéet dañ ne dañ ne dañ ne feebar bi. quarante euh, quatorze jours. Mhm. dañ manifesté wu génn. Mhm. loolu la ñuy wax quatorze jours. waaw lay doo ko xam. Mhm. mu génn rek day génn par force. mais li problème yëpp mooy que ne moom. comme boo xoolee Afrique ñun hmm, sonn moo tax ñu ak ñi am sàggante yi yëpp sonn dañoo sonn. xam nga sonn. sonn weesu bët ci démb di li la ko wax mën na la produit. waaw toj ay magasin jël yëpp ko lekk ba léegi ñu fi jeexam yàgg. ah. loolu sonn la. te ci biir corona bi la. comme ma la non sonn moo waral nit ñi dëgër bopp jéem nekk ci mbedd mi. sama naka bu fekkee yow la bëgg. gouvernement bi nga xamante ne moom moo la moo la digal ne la bul génn. Mm-hmm. moom ay poosam fees na moom. waaw a jóg moom moom dem di ñu dundali ji xale yi njaboot gi. Mm-hmm. dafa mm-hmm. boo ko xaru xaru bu bu yàggee xaru def bu mën bu fekkee am na pexe jël jël jël jël ngànnaay song la. dana ko def. waaw bu ko amul dana xaru. ndax yaa ngeen jàng normal sa lépp say doom ñëw sa dara ñëw fi yaa ay milliards. ki yor benn ñaar fukki dërëm nga bëgg ko jël tëj ko loolu Afrique gii nii. bu ñu restauré ko fi du yomb. te parce que on est fatigué bu dee tubaab yi mën nañ ko tax ñu mën nañoo jël seen lépp organiser ko. kon nag ku ne am loo xam mais ñun Sénégal Afrique gii nii lan lañ war yenn conneries yenn yenn genre affaire yoo xam te ni maanaam buñ bàyyi leen lii ñii ne noonu ñu ànd mu indi jaxasoo boobu. jaxasoo boobu noonu tamit nag. comme am na loxo xamante ni moom. parce que xaw ñu dëgër bopp tamit ci côté. moo fa laajee mooy que ne maanaam boo xoolee boo xoolee benn affaire. xam nga sax kuy ne ñuy muñ tamit quoi. dafa nekk rek mooy may la. mooy may la. Euh, euh, lu leen ko a waxee maanaam euh, loo ni àdduna bi. àdduna bi mënuñoo loolu mën na ne. France mënut taxaw di fenn Italie taxaw di fenn. Mm-hmm. ne de deele naa nangam. lii moo fi am ci nangam. loolu kon fu mu am am la fi kon ci àdduna bi. waaw kon am na fi. mu ngi fi waaw seulement on l'a pas encore. fii boobu ñun ñii ñu ñuy mais. am na fi donc dama naan lu existé lu existé lu existé wul. existé na existé wul. c'est vrai man gisuguma ko mais tamit damay jël samay mesures de barrière. quarantaine temps bopp. waaw xam nga dafa ça fait partie ndax même pas bu dul loolu sax. ñun dañoo nekk ci benn environnement boo xamante ni dafa c'est trop poli maanaam beaucoup de choses moo lay ngay xet lu ne. commencé que sax dafa war sax toujours fii ci Afrique sax même bu ko bu loolu amul ak moom amul woon. sax parce que fii lu ne ngay romb. ah boobu dara. oto yeeg lu ne lu ne ngay jokk. Mhm. mën na ne daal ñun suñu dëgër bopp boobu noonu moom tax ba léegi dañoo mës a dëgër bopp ndax mooy mooy que ne gis nga comme ni ñu ni ñu ni ñu tàggee fukki nit di gas. fukki nit di suñ. Mhm. bu fukki nit di gas. Mhm. gouvernement fii buy gas pour pour pour nit ñi am paax. fukki nga koy jéem a suul. kon parfum yi nga xam ne. léegi ñu bëggoon comme ni nga ko waxee nii ñëpp ni ko métti lu mu tëj ñëpp euh, ñu buggoon ñu ubbi dëkk bi defe naa réew mi ubbeeku na hmm. ñu gis événement yi tàmbali naa am lu mel ni xew yeeg kenn tereetu ko hmm. euh, làmm yeeg ñoom sax ñu ngi ñoom sax ñu ngi commencé di mitin waaw léegi loolu noonu jaxasoo ba yooyu te feebar bi jaxasoo lay bañ te mu ngi fi hmm. loolu loolu lan moo ciy xalaat lan lañu mën a def ba gën a mucc ci feebar bi. yow ma ne la xam nga affaire dafa am. loo mhm. xam te ne gis nañu sax. Mhm. nee naa mhm. a lajj. ci feebar bi. mooy maanaam pouvoir bi. gouvernement bi man man mën nañ ma ma loolu ñoo xam mais ñoom la gis la loi. kon man mën naa ne kon man maa ne ci kaw. kon man kenn tiimu ma maa tiim ñëpp. donc multimie ñëpp sart yi day mën a dal à cent pour cent mais bu dee boo jàppee yi bu subaa nga bàyyi leen nee ah dama fii gis yoo xam te nii yooyu noonu noonu takk deer yi def te wut ko fenn Ndour Sarr romb la takkul quarantaine keneen romb la takkul quarantaine nga jàpp ko mais pour la loolu foofu sax damaa yaakaar ne comme jëloon ay masque di xaw a sensibiliser. léegi par force loolu dama naan li ma gënaloon foofu. au lieu policiers yi ñëw di jàpp nit ñi di yóbbu di leen fegloo tubaab yi ndax man taxaw naa am ku ndugg hmm. si. oto bi. Ah. Hmm. bu joxee 3000 dina mën a ndugg pour jënd añ pour togg añ est-ce loolu noonu jënd ay masque moo ma euh, ñëw ci marché bi wala taxaw si tali bi. di sensibiliser nit ñoom policiers yi est ñu leen di jàpp. moo tax wala dafa nekk ni ñun. corruption da cee am dafa nekk ni ñun. corruption. Mhm. moo ci am. des mhm. mhm. bi ñuy bi bi bi bi bi événement bi passé bi am. sàcc si la ñu jóg profité ci. waaw waaw ñoom yóbbu wala tamit policiers yi dañ ciy profité sax at man mënuma bàyyi cinquante romb ma takkuñu masque. ma dem jàpp kenn. fekk ku ñu dugg nga jàpp ko. ñun ay jullit lañ. mais un xanaa yow bala ngaa nit mu jullit comme yow nga nar ko yóbbu li ko fayoo 3000 nga baal ko. ay paquetu masque. mais ñun jàpp na sax ñun on tax ñu bu doon loolu lañ njëkkee mu tane. waaw ñun dañoo ko masque. waaw ma xamante ñëw bi jox ñi masque. mais bu ñu fi ñëwaatee taxaw ak. déggee ci marché bi wax dama ne la kii ngi fii ñoom kii gàpp ñoom ñëpp fii ngan la yaa ngi fii ñoo xamante ni bu ñu jógee bu ñu bëggoon lowu un milliard dañ koy am tey tey tey tey tey tey distribué au niveau de Pikine. Euh, euh, euh, Cheikh maire boobu. ñooñu ñëpp c'est des gens yoo xamante ni nii xoolal bu ñu bu ñu jóg lijjanti ñëpp forcé leen masque yi. mu mais maire yi ku nekk def nga sa wàll. waaw dafa laaj rek. Macky Sall ci boppam moo war a jóg taxaw ne eh. Cheikh moom gis naa. waaw xaw ma ko xamuma mais gis naa ñuy seddal ay masques. yëpp est-ce que masques yi jox naa ci. est-ce que man jot naa ci. Mhm. nekk amul samité maanaam ñu ne dessus la loi bu ñu xasee wax loolu. kon loi moo nekk ci kaw moom moo war a ne eh nii laa ko bëggee nii la woon ku teggi sàrt yooyu ma doxal ak yow nii. comme xaaral comme bàyyi naa leen nag yeneen kurum kurum ba soxla ngeen bàyyi naa leen léegi nii ngeen di doxee nag par force. waaw mu neex na nga dem liggéey ndax yéen liggéey liggéey moo taxoon ngeen ngeen di xéeru. Mm-hmm. maanaam bu teel a wàcc. Mm-hmm. tëdd léegi noonu lépp dindi naa ko. léegi nag masque yi laa bëgg nag ñu restauré ko kenn koo xam te ni la romb nañ la bu ñu la ko waxee benn yoon ñaari yoon. nga leen mm-hmm. jëfandikoo yoon. waaw. Hmm? mais defuñu loolu loolu xam nga Sénégal la mu fi nii. maanaam comme ceeb gi naan. feeñee fii nga bëgg wala sën baa ngi nii nga tëdd fii. Sénégal ñu loolu muy wax nii. moo tax ñu fi tax daan ay train boobu noonu xawma. train yi train boobu noonu fii la war a daw train boobu normalement quarante ans ci kanam. sax boo taxul ñu am ko. lu leer laa wax am na dëkk yu gën a am xaalis foog te amuñu train bi. est-ce saytu ko ko. saytu ko problème la mais lu daw fee jam ñaaju c'est que daal train train wu la am na train yu normal yu fi am na train yu baax yu fi nekk yoo xamante moo gënul lii nii nga xamante ni fi muy jaar fi muy traversé nii. Hmm. lignement bi yëpp tout c'est des pauvres ay kër pauvres lay romb. waaw xam nga design boobu nag fi mu jaar fan la nan war a mel. ay weer la war a li ko li ma la ay weer la war a ñu bëgg a jàng yi miir yeeg yooyu. li ma la meer kay ko biir ay pauvre. c'est pour faire quoi. bala ngaa tànn kooku am na lenn la waroon a tànn. bu bul yàkkamti ne dama bëgg a baratine nit ñi ba tax nga dem bi profité wala affaire yoo xam te day ruum ci ñun wala yoo xam te ni jotaguñu ci. Mm-hmm. arrivé guñ fi ñun mënuñu def pousse man mii moom yi ñu teg ñëpp ñu ngi defar dara nañ jéem a dem lijjanti loolu bu tey étudiant yu dem ci kaw dem lijjanti ci génn xam-xam yow teg dëkk bi développé ñi ci des dem bàyyi président xam nga man gën ko bay nii. bu ma ko dénkoon léegi léegi seen yëpp dinañ dem bàyyi sa parce que xaalis bi ñoom ñuy jël di ko jël di ko def seen i poste di ko yóbbu ay Europe tey jii bu ñu woowoon jeune bu nekk mel tey jii boo buggee tool yi am nga weer cent mille bii daa yëpp kii bi jóge fi. waaw ambulant bi jóge fi. ñu bari dañu fi jógee sax rajo dañ xam ne ko weer bu dee te bu gare soxla leen dëkkal leen. Mm-hmm. lekk ak naan sa sa weer nga am 100000 mais ñiy agressé sax bu ñu ko mm-hmm. a nga te nga ba ñax la ba ngaa xaar nga romb dëkk bi di souffrir ñu koy la wooteel la fii. Mm-hmm. Ah, nga naan ay le 23 juin bu ko def soir li nga moom jour bi passé nii ban jour la. ba depuis 23 juin. am na trois benn benn benn quartier la woon. bii ñaata quartier ñoo tàkkoon ñaata ñaata ñaata dëkk. ah kon xam nga xam ne ko faroon lajj nañu. Hmm? mënoon na Sénégal dañuy dem fekk benn nit ñu ñoom ñoobal ko ba ci Sonko bi ñuy tulli tulli dañoo xam ko. mais est nekkul réew mi moo jiite. dëgg dañoo nekk pays sous-développé. déedéet fi mu toll nii koo fi monti indi mu fanu. coow li nii lay demee woon. déedéet déedéet. Abdou Diouf ba ñuy coow Abdoulaye ba ñuy coow ba ci Macky Sall mi ndax seen morom moom. defal naa ko defal naa ko de. mais suñu réew yi ñoo ko ñoo defal. waaw déglu ma la déglu développé wuñu. waaw déglu ma la déglu ma la. ci kaw leen nee naa la ñun. xam nga fan lañ tane. Mhm. ñoo am ay ressortissants ñu mu teg ñeneen ñi. Mhm. ñun suñu dëkk boo xoolee li fi nekk nekkee li fi nekk lu bari bari bari ca defet. Mhm. ay ressortissants ku fi def de. xam nga loolu noonu. ay ressortissants ñu génn dem ñëw. taw bi ñëw waaw fulla boobu suñu borom def na ko ci ñun. maanaam dem xalaat sa dëkk tabax fa. mais bu doon gouvernement bi nii lajj nañu. dalal jàmm gi nii. kan moo ko tabax kan moo ko tabax daañu ñoom ñu la mais loolu bu da nga koo moom moomu ko c'est pour nous non. yow moomu ko ñun ñoo ko moom. ñu ñëw teg fi nga ne noonu lii existé xool hôpital boobu ñu toll amul benn matériel à cause de maanaam xeexu suuf. maa ngi ko wax non def psychologique maanaam comme loo xam te ni yow ci maa ngay demee nit ki quoi que ni ko lii nii noonu ko defal. loolu moom seen li ñu wax yëfu Ndofane Sarr bi dañ ko teg nii romb laa ci am. ah ba bu xool suñ ko ni mu ko doon noonu. ak ah, li fa def yëpp defu fa dërëm. mais donc mais festival bi nga xam ne nii. te lépp nit ñun ñoo ko faloon ni ana ñu ko faloon ni Cheikh Bamba ji ñi dama doon jéem a takk seen bopp ca pale ba ngoon googu noonu ana est-ce que duñ jéem a takkaat seen bopp ca pale ba ah. démb ñu ngi benn vidéo boo xamante ne nii fan xam fu lay woon Saint-Louis bi. Mhm. te si je me rappelle un jour Macky Sall taxaw na saint ñu saint def ne pont rek. Mhm. c'est parce que tey boobu du loo xam si. boo demee na lu mu fa liggéey. ne. loolu wax ba ay forage ay forage yooyu ñun ñun dépassé nañ forage. yéen yéen ñëpp moo ko yëgale gis nga yëngale yëgale. dafa mottale kay moo xaw a. voilà léegi nag loolu noonu. nee naa loolu existé wul. Mhm. loolu mottali la. Mhm. xam nga mooy problème bi moom bi mu ñëwee xam nga mooy problème bi. Mhm. waroo woon a jéem a tabax leen nag xam nga waroon def. li fi laay wax de de mu teg ko fi. li jënti jigéen nit ñi. xëy nit ñi. amuñu amuñu problème nekk fi rek bëgg fee toog. non du bañ fee jógee ndax ku ci ñëw départ bi am na looy def ba nit ñi teg si bët. dafa nàkk la ah, dafa euh, dafa boo xoolee boo xoolee problème yi fi jublu yëpp ñu bëri daa am luñ dencoon. waaw ah, dafa nàkk waaw ne waale ko si ñax yeeg yooyu. est-ce que amuñu problème comme président boo xam ne day ñëw départ yi gars yi fal ko mu am lu mu def dem bu si biir mu lañ. déedéet laaj bu fi bu fi bu fi nangoo jógee lu fekk lu laaj ngóob saar. dama ne la ñun Sénégal wax naa la ko sànq ne la ñun suñu pays baratineur ñun ay baratineur lañu maanaam ñun dañuy taxaw wax nit ki eh, mm-hmm. man dama def Afrique. Mm-hmm. ñun jëlee ñun Sénégal yi ñoo gën a intelligent ci ethnie yi ñu wër yëpp maanaam bu takk deer yi taxawee beneen dëkk. bu ñu dajalee étranger yëpp Sénégal la jël tekki kan. Mm-hmm. dañ ñaan carrément bu mu wax bu ñu wax ñëpp ñu libéré ñëpp.

da ngay tëgg oo ngay def lépp. sama yoon ñëw ci góor a. sa naa yaa ngi fi fayuma. xoolal uude yaa ngi fi. di defar daal yoo xam ne. waaw. Euh, daanaka mënoon nañ koo jox valeur bi. waaw dama fay daalu sécurité police yi. mu jugee. ay est jël lu ñu moom ñu jéem koo gérer. léegi ko mën a liggéey gis ci seen bopp. loolu loolu léegi doo sàkk doo sàkk. nañu xam na na chinois yi def. Mm-hmm. ñëw gis daa mel ni. di am seen Chine defar daa dañoo dem defar ay baat. dañuy ñëw bind baat bi mu am tey. Mm-hmm. mooy comme li ngay wax noonu. Mm-hmm. léegi yow daal yi nga xamante ni uud yi moom la ñu waroon a jox muy rafet gën a dëgër. nga ne ko fi dem euh, euh, euh, ko dañu la ko kilométré maanaam ci une semaine daal la ko teg yegg. nga dem jëndaat beneen ñu jaay la ko mille cinq cent. te yow ñaata ngaa dem jënd daal 3000 bi téye. nga xam ne day yàgg kon xam nga naxasal sa réew dem di favoriser ñële. pour lan loolu mooy lan boo demee fee nee nee naa la. kon si yu bëri mën na fee yëpp. sinon suñu benn nataal nii suñu benn nataal même mag nataal maam Serama mu ñu koy jël dem Chine. Mm-hmm. indi reproduire lépp indi fii fii. Mm-hmm. yi léegi ñun am kan moo ñu défendre. bëri étranger moo ñëw fi jógee ñëw fee léegi moom imposé ñu taxaw suñu kaw xef senegal yi nii pourtant loolu mel nañu dañ ñuy liggéey ñu dañoo liggéey ma directement loolu la jàpp réew mi dañ ko liggéey ak seet yàlla mu wax seet yàlla mu wax Sénégal war koo sangat da koo wax ba bari tey ay kër mu dem kon xam nga bàyyi def benn moom bàyyi def loo xamante ni nii tamit gis nit bu ci bàyyiwul xel nañu xëy suñu Sénégal gi ñu taalal ñu ko te nag naa la xam lu benn xel fii laa koy waxee ni ñoom ñu ngi koy dégg gis nañ ñooñu di jéem wax ay affaire de taal ay affaire de kii nii bu ñu yemoon nañu ko yemale seen bopp. am nañu ñu ñu tamit def révolutionnaire. ramas xol li fi nekk xamoo ñu ànd di doxandoo benn tànk. mais affaire ay raciste ay affaire de ethnie ay yooyu noonu yooyu lañu fa war a jëlee. Sénégalais nañ. ku nekk toog sa waaw nañ nañ jël nañ jël saanu affaire ethnie teg ko ne leen. nga xam ne ñun tous on est des Sénégalais. loolu moom moo am importance mooy tey man maa gën kii. man maay toog ci pouvoir bi yow war a toog ci mi yooyu mooy lan te moom la ñu te du ba léegi nii ñu ngi ci. nag man l'âge ba jusqu'à l'ère de ba léegi. dara bi tubaab bi ñoom ñu ci l'ère nouvelle. waaw dem nañ ay gratte yoo xam dañ koy monté. Mm-hmm. ñu ngi ci miir yi. Mm-hmm. ciment bi ñu bëgg a rey te dañ ciy tëdd. sa yaa nga dem dëggal dugal ko fa xeetu ciment koy jàpp ay xeetu ñu ne la dee na. def naa ne yàlla doom ji am na xaalis nit bu dem tabax naan mais bu xamul si xot si xetu ciment. fa dugal. waaw fan la juddoo ci sàkket. sàkket ban ban ngelaw lay indi. ngelaw lu neex nga xëy ko jëlee ko Ndakaaru indi ko fi nii daal tabax def ko eh, dugal ko ci biir. Mm-hmm. quelque moment nga dégg ñu ne dee na. indi ay kilim ak ay sabara la mooy jànguñu jànguñu. ay kilim ak ay laaj rek waaw laaj yi wésuwul leen gis nga fi ñu taxaw nii. Mm-hmm. ba géej mm-hmm. nga zone lan la. tubaab bi xam nga zone lan la ko defoon zone pauvre. maanaam ci pour les pauvres. xamal moo ko war a santé dañ ne bant. Sénégalais yaa ngi dem dem dafa ay ay ay suuf. déedéet mais booy évoluer day fekk ngay évoluer foo xam ne temps dina neex ci yow. xamoo géej googu nag daa am brise bu mu yor brise bu bon boo xam ne ñëw ci nit ñi. boo fa defee antenne da koy lekk. xam chaque jour bu dee euh, trente télé ñu ngi dund géejawaay. Mm-hmm. Hmm? chaque jour. deux ñooy des wala trois ñoo ciy échappé pot lampe day lekk kon bilis boobu noonu loolu di yooyu noonu noonu yooyu est ce que baax na ci nit. baaxul ci nit. Mhm. Ah, te ñii yëpp dañoo dem tabax. kër yi ñuy sax ñi dañu ko moom luy ko ñenn ñi rek. Ah, dem dëkkal fa sa njaboot muy xeeñ ci bilis boobu xëy tere ko tey wala mais yow boo dee jàngal nag léegi tubaab bi ñeena jàngal na la. boo jógee sa su ko sim romb mais tu et tu n'arrives pas à lu ngay jariñ Sénégal looloo fi am fii da ngay gis nga xogaliku di léegi après moom ci liggéey ma ne la xam nga war a dox xam nga hmm. bu téeméer di bu amul moyen mën na doxal. kooka la. Samir. lu tey esprit sénégalais am ci moom de. Salam Vision. développement mën na ci ñenn ñi. Hmm. ñenn ñi muy rafet ci ñoom mais du ñàkk ñeneen ñoo xam fii dëkk bi nee naa la fukki nit di gas la fukki nit di suul. boo defee ñu wax boo defu ñu wax. boo defoon tax lu baax boo doon defal ñëpp lu tey am ñoom te day taxaw ne tey eh, jaagatu drogue la wala nangam nangam la ko. parce ci lobby bi la bokk comme léegi lobby bi moo boo amee xaaj ñu ne ci secte bi mhm. bi nga bokk. comme aliment non Sénégal loolu dañuy analyser loo xam ne xamuñ ci talaat. moom yàlla moom yàlla moom buy joxe moom. gis nga Sonko mii nag noonu lañ ko def nag te dinaa leen ci interpeller seen Sonko mii nii nii ñuy wax Sénégalais yi ëpp ñu ñu xam-xam. loolu laa bëgg ñoom ñu xam ko yéen ëpp leen ñu xam-xam wala ngeen bëgg ne da ngeen di toog bu ñu dajee naan ay non d'après sama analyse eh, eh, eh, Sonko nii. Mhm. ëpp leen ñu xam-xam ndax yéen bu leen loolu kon na ngeen na ci kenn répondre ma ne ma suba dina yeewu am déet boo ko amal ma mën koo toll ba xam ku ku a ku mën a rek taxaw rek ne ma suba moom dina yeewu. ku xamul ni suba. des fois des fois analyser. des fois c'est pas que ngay analyser ko. des fois kilifa yi di ñu dofloo nag. waaw di loolu di quoi dafa nekk. mais amuñu lan lay ñëw. waaw mais ma ne mu créé uh-huh. fii nii ku ne la woon bi tey nii dañu mujjee moom bi ñu ko kon gars yi dañuy xool ci bu ñuy teg beneen nit man ba ñu musul ko président boobu moom côté boobu Sonko ak hmm? nañu dimbale rek góorgóorlu ku ne ku ne wasul ax ah, ñu jéem a dox si jàmm ah, jéem a jullit ay jullit lañ comme kilifa yi am ay jullit lañ fi xew yëpp neexul kenn mais di ko may la ay jullit kilifa yi war a wax wax nañ ba eh, jàmm am na ñoom nañu góorgóorlu juboo pour doxal réew góorgóorlu boobu moom mais fi jàmm amul moom

sabar am na yu bëri yoo xamante mhm. te loolu mënoon naa ñàkk. ndax gars yi dañoo xeex ñaari xeex. defe xeex ñaari xeex. defe <laughs> xeex yooyu ñu xeex na erreur la. Mhm. ndax entre Sonko Khady Sarr. Mhm. Macky Sall ça n'a rien à réew mi. ñu dem jël ñaar yëpp jaxase leen pour lan. loolu dañ ko jël ñu teg ko ne gënuñu intelligent bu dee réew mi nañ dem xeexal a mi bu dee diggante concours. waaw bu foofu bu doon bu doon intérieurement. bu doon ñoom ñaar rek du sori. bu doon Adji Sarr moom du sori ko. moom la ci Sénégal la ci de. Sénégal ñoo la ci de. temps bi jeex wax naa la a taxaw ne am réew ngay taal ñaari jigéen jigéen ak góor a ko jaxase. daanaka temps bi jeex na Sénégal gi rek la am. dinañ fi ñëwaat dinañ fi ñëwaat dalal la fii. xamuñu waaw chaque jour luñ ci luñ ci luñ ci jóg. bis bu set dañuy ñëw fii toog wax liñ ci réew mi. te ko ci te karak mais ñoom ñii laa lay waxal nii. on fait que seulement des conneries. te seen conneries yi nag dana jeex. dañuy muñ rek mais bis bu demee da ngeen dee wala ñu jeex. Euh, voilà. ñu ngi lay jaajëfal ñu ngi lay jaajëfal ndax aw bala ñu lay bu baax a baax a baax o eh, fogole seereer in way njoga nuun a njal kene kam saax xaye koy ka asin no olof yaam Sénégal moom Sénégal no fop o donte i mbaaro lay na seereer i mbaaro lay na olof eh, njaajëfala fop mbege a fop eh, ñaanana fop jam sak wan no fop kene re'u émission nuun ke kam saax le in way nqeɗana nuun jam sak na nuun yàlla suñu borom wàll leen foofu boo noonu demee noonu laxas incha allah. Bienvenue sur Salam Vision.